الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن من أعظم النعم أن جعلنا الله من أمة خير البشر محمدا صلى الله عليه وسلم فالإسلام ديننا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ودستورنا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم
والكعبة والقبلة الكعبة قبلتنا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم سطره نعم إخواني أوافقكم بأن هذا يستوجب الشكر لله ولعل الشكر المولى عز وجل ولئن شكرتم لأزيدنكم إننا نتره بين يديكم هذه الوصايا لمن عاد من البقاء الطاهرة والتي نسأل الله أن ينفعنا بها بقيتي الله تبارك وتعالى ginnaaw ba nu tàmbalee ci sunu tur boroom nu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal mbokk yi ci yàlla li gën a rëy di ay xéewal yu yàlla defal ab jullit mooy yàlla boole ko ci xeet wi gën ci xeet yi muy xeetu muhammad yàlla boole ko ci diine jooju nga xam ne moom dong la nangu amul beneen diine bu yàlla nangu ci kaw suuf bu dul islaam waaye yàlla boole ko ci ngën gi téere muy alquranul karim téere boobu nga xam ne moo jommal àdduna nit ak ginne bokk na ci xew li yàlla defal ab jullit yàlla boole koog yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu nekk ngën gi mbindee bokk na ci xeewal yooyu ba tey jullit war a sant yàlla yàlla di jubal xar kanamam bi guddeeg bëccëg ci kaaba gu sell gu màgg gii bokk yi ci yàlla ñun ñëpp dinañ ànd nangu ne yii ñu lim ay xéewal la yu yàlla defal ab jullit yoo xam ne jullit mënu koo fay boroomam def la nga nekk ab jullit bokk ci lislaam boole laa ngën gi mbindeef boole laa ngën gi téere boole laa ngën gi xibla yii kenn ku nekk ci ñun mënoo ko fay borom bi tabaraka wa taala yàlla la neex mu jagleel la nga bokk ci mbokk yi ñun ñëpp bu nu àndee dana nangu ne kon lii ku ko yàlla defal war ngaa sant borom bi tabaraka wa taala ci xéewal yi mu la defal ginnaaw loolu ay ndénkaane muy al al wasaaya liman aada ila al hajj ci ku yàlla xéewaloon mu dem joxe ji juróomeelu ponk ci ponk lislaam yi muy mu dellu siwaat ci aj tomb yi ay ndénkaane yi ñu dénk suñu bopp di ko bopp jullit boobu jóge aj bu ci njëkk mooy mbokk jullit boobu aji woon te dellu siwaat na yëg ne war na sant borom bi tabaraka wa taala ashukru lillah ala itmaami hadihi alfarida almubaraka na sant yàlla ginnaaw ba ko yàlla xéewalee tabaraka wa taala mu dem joxe ji ponk bu màgg bi ci barab yu sell yi na sant yàlla waaye gis ngeen ni ñun Sénégal balaa ngeen di xam ne nekkuñu ci dara kenn ci yéen ku yàlla wërsëgal mu julli si jumaate yàlla guddal fanam may ko kattan may ko alal ba mu dem makkatal mukaram kon dina xam ne Sénégal nekkuñ ci dara dañuy fo rek gis ngeen même bu ñu ñibbisee xoo yooyu ñu nekkee woon fii ci la ñuy del siwaat illa man rahima rabbuka lu dul ko yàlla yërëm sunu diine yëpp fa la te ku yàlla xéewalal nga bàyyeekoo ci fii nga dem foofu léeg-léeg nga ànd ak nit ab sénégalais nga koy won di ko wax di ko leeralal mu ne la non man nag wax dëgg yàlla dañ ma ne rek naa yem ci julli yi juróom bu ñu waree wër ma wër mais bu ma fi jëlee dara. ànd nañ ak benn waay boo xam ne dafa def ñaari tour tawaaf ñi di tawaaf juróom-ñaari yoon moom mu def ñaari yoon daal di dem toogi noppalu ñu ne ko des na juróom mu ne may naa ko sëñ bi sëñ bi dina ko yeggali waaw keneen ki dañ ko ne boo demee Kaaba ga am na biiru jam-jam kooku moom tukulóor la toon na waɗi biiru jam-jam sa yehi ya looto heen woppa contima mbomi baaba ɗum alaa ɗo amana biiɗoma noono ceerno biiɗoma noono o haali goonga e jamano makko amana o tawi ɗum ɗo kono oɗo sahaa ɗum alaa ɗo o wi kam ono noon ngala gandal ya woppumomi honmi o majji omo yiilo ɗum hawo majji 24 heures hay goto anda ɗo woni ndeke kon majjo holko addinimo majjere par ce que ko ga o majjina ɗum tagi o yehi ɗon o majji koko hamge lum ɗon woni dex gumu sangu dexu zamzam bu muy sangu nena sëriñam nena ko sangu won na ci kon moom bu ñëwee def cee war a sangu ma ne ko loolu amu fi robinet yi ngay gis moo fi am demal nga jàpp nga naan booy jàpp nga jàpp booy xëppoo nga xëppoo mu ne yéen amu leen xam-xam ma bàyyi ko fa mu réer 24 heures kenn gisu ko xamuñu fa mu nekk lu tax mu réer parce que fii lañ ko réerale moo tax bi mu demee foofu mu réer kon mbokk jullit yi ku yàlla wërsëgal mu dem ci barab yooyu del si lu war ci moom mooy mu sant yàlla la in shakartum la azidannakum ñaareel mooy la yakun alhajju nuqtatu tahawul wa taxyir fi hayatina nga la waay ku yàlla wërsëgal nga jóge màkk dils dangaa war a soppeeku dangaa war a simmeeku yére yi nga doon sol sol yeneen dangaa war a soppeeku ci lépp rawatina sa jikko dangaa war a jege yàlla dangaa war a nekk ab jullit dangaa war a bëgg Seydina Muhammad waaye gis ngeen li tax ñun aj mënul ci ñun dara parce que dañuy yor pas pasu bu ngeen fa demee bu leen fa jëlee dara ku fa dem nag jële woo fa dara doo fi indi dara lu dul ay bagage yooyu maye te li tax nit di dem mooy pour soppeek li gën a rëy li ñuy jàng ci aj mooy muñ ay millions yi millions yi nit ngay nekkal guddeeg bëccëg di jàng ci ñoom ñii di la tooñ ñii di la bunduxataal ñii di la gëdd ñii di la xas nga war a jàng ci ñoom muñ pour boo delsee nga war a nekk muñ kat mais maa la saf yàlla nattu na réew mi ba buñ demee ci barab yooyu ni nu mel fi lañ koy yóbbu nekk naa màkka weer gisuma bopp jigéen saa yoo fa gisee nopp jigéen wala baat soo ko nee na nga def mu ne la manqué rek nga xam ne kon yéen a bokk réew loolu fan lañ jëm ci réew moo xam ne nee nañ quatre-vingt-quinze pour cent musulman la ñëpp ay jullit ñi def bopp neen yaramu neen foo guddi ak bëccëg wallahi ku yàlla wërsëgal nga jógee fi dem foofu di nga xam ne nekkuñ ci islaam nekkuñ ci islaam ñun xawma ci lu nekk nag waaye nekkuñ ci islaam bu yeboo ñu seetaat suñu bopp ku nekk yaa boo dee yaa sa bàmmeel beneen la gunge jàpp la wammat la ba ci sa bàmmeel wàq dugal la dem ñibbi kon ku nekk xoolal sa bopp xoolal lii ngay dund lan la balaa ngay dee dajeeg yàlla mu ne la nekk woon ci dara yóbbu naa nit ba ci jàkk yonent bi muy ziyaara ji rawda rasul fi yonent bi ne maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna ma ne ko jógal julli ñaar raak mu ne ma non dañ ma ko tere sama sëriñ nee na waxtu wi kenn du ci julli ma ne ko sëriñ bi tëdd fii ak sa sëriñ ku raw mu noppi bañ maa tont ma ne ko xoolal seytaane mi ngi lay jàpp ba yaa ngi bañ a wax ne sëriñ bii moo raw sa sëriñ te nga tontu mu tiit mu ne ma waa kii de moo raw man ko kii nee na jàkka ji ku fi dugg bul toog lu dul nga julli ñaari rakk nuyu jàkka ji mu doog a jóg. jëm yooyu gën a tuuti ci ay pas-pas yu ñuy fas di ko yóbbaale foofu ànd nañ ak benn waay boo xam ne xam ngeen lu tax mu aji ut puubu xaru xaru tabaski yi yooyu lay uti puubu xar xaru tabaski yi seen nefere yooyu lay uti pour indi ko fii di ci buxaaba yooyu lay indi fii pour di ci liggéey yooyu lay uti naan ku ma indil ku ma ci indil rek dinaa la jox loo xam ne ci alal xale yiñ ko doon wax ñëw diñ ko nettali ñi ay xeer la ñuy uti ñii suuf la ñuy tibbi ñii la hawla wala quwata illa billahi al-aliyyil azim ixwatal iman ndeke aj dafa war a tax nit soppeeku li tax ngeen gis gaay di dem di ñëwaat ana allaaji mu ngi estaat ana allaaji dem na làmb ja ana allaaji mu ngi soraano ala allaaji mu ngi cosaan parce que jëlewuñ fa dara moo tax duñ fi indi dara lu dul buñ ñee delluwaat ci liñ nekkoon ñaata allaaji yu ngeen xam yu dem cosaan ñaata allaaji ngeen dëkkal ci biir kër yi dañuy biddanti di duñ julli fajar ñaata ngeen xam ñu nekk ci làmb ji ci ay allaaji ñaata ngeen xam ñu nekk ci ay caaxaan c'est est-ce que ba ñuy dem demuñu woon jëli ji fa dara dañoo dem demu tourisme ziar ànd naag benn waay xaw ma ban nationalité la dañoo raaj sësante jëm fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam tëdd ak Aboubacar ak Omar mu jiitu ma ak ñeneen jiitu ko mais man maa sës ci moom ñeneen ñi sës sama ginnaaw ñu ma doon yóbbu waa ji di photo di photo di photo ba yegsi ci bàmmeelu yonent bi bi mu yëkkatee portable bi ne day photo alkaati bi xool ko policier bi taxaw ci kanamam mu tiit mu ne ko usawir usawir ndax ma photo waa ji ne ko unzur maza ataka bihi in kaana taswir fa sawir wa in kaana ziyaara fa zur bu dee photo moo la indi photo bu dee ziyaara yonent bi moo la indi nag wax dëgg yàlla ziyaara day gis gaa yi di puukarewu ku nekk di photowu photowu naa fii photowu naa fii est-ce que photo moo ñu yóbbu lan moo ñu yóbbu yonent bi keroog ba muy aj ba mu déparé teg tànkam ci gëléem gi di yéeg teg ndeyjoor bi càmmoñ bi yéegul dafa ne allahumma hajjan la sumata fiha wala riya yàlla aj goo xam ne amul ngistal amul ndéggtal maa jaamu yàlla la kon dafa war a soppi nit inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim yàlla du soppi ay nit lu dul dañoo soppi seen bopp sunu nanguwul soppeeku duñu soppeeku abadan ba yawma alqiyaama billahi wallahi wa taala bisu ajjuma laa nekk fenuma ko bisu arafaat ajjuma la woon nga gis ku fa nekk naan waa Sénégal diine ngeen bàyyi gëm leen ci li ngeen nekkoon ba ngeen dee bu leen fi jële dara bisu arafaat kenn ci waa Sénégal di dénk ay mbokkam naan leen diina ngeen fi indaale manqué lu leen dara diina ngeen bàyyi réew ma nekk leen ci li ngeen nekk ba dee allahu akbar ku dem ba ci yonent bi te soppeeku woo kañ ngay soppeeku ku dem ba jàkkaarloo kaaba borom bi tabaraka wa taala soppeeku woo jële woo foofu dara kañ ngay soppeeku ixwaani ñetteel ci ndénkaane ci dénkaane yi dénk ñooñu mbokk yooyu annaasu tarjiu min alhajji bilhadaya wal asl an narjia bilhadaya ihdina sirata almustaqim demee màkk di del siwaat ku nekk ci ñun ay bagage yoo delloo si ndeysaan léeg-léeg nga dégg ku ne foog ma jëndi fi bagage bu bari parce que bu ma demee damay nganale gis ngeen bi ñëwee ba léegi mbedd yi tabala yaa ngi tëgg aja ana yonent bi ajaratu yi dem salon delluwaat ci bopp neen génn nopp paccali ween ba kañ luñ tàmm mooy indi bagage fekk li li waroon ci cosaan bi asl mooy kuy ñëw looy indaale mooy ihdina siraat al mustaqim loolu ngay indaale waaye gis ngeen seytaan ni mu tafoo waa Sénégal seen pas-pas te gis nga nit bu ñu sàccee pas-pasam addunaam ak alaxiraam yàqu na te Sénégal dañoo sàcc seen pas-pas bu ñu tafoo sa portable amul problème mun nga liggéeyaat nga amaat bu ñu sàccee sa oto mun nga liggéey nga amaat bu ñu sàccee sa kër mën nga liggéey nga amaat bu ñu sàccee sa alal mën nga liggéey nga amaat wallahi bu ñu sàccee sa pas-pas pare nga adduna pare nga àllaaxira booy dee dugg safara parce que pas-pas mooy nit ku amul pas-pas baaxoo te ñun nag suñu pas-pas lañ sàcc moom lañ ñu tafu looloo tax mënuñu nekk ay jullit mënu nekk ay jullit comme ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkee bu ñu génne tere di wane ujaaji Sénégal yi wala ñu leen di laaj ay problème lan ngeen di dégg ñuy wax ceeb bi neexul amul yàpp tëddaay yi tëraay yi dafa xat dafa tàng yenn climatiseurs yi du ñu tàkk léeg-léeg ay ujaaj wax ma ko ñu ne ma oustaz sori na de metti na de nan dox ndànk ma ne leen yéen bi ngeen di ñëw ci lan ngeen yéeg ñu ne kaar kaar bi lu ci nekk ñu ne dañ ko climatiser fauteuil bi dafa nooy boobu la neexee am na bouton booy bés mu xaw a jaaxaan nga tëdd nga nelaw man leen ñaata fan ngeen ko def ñu ne benn fan ay heure heure lañ ko def daal di yegg man leen yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy ñëw fii gëléem la waroon ñetti fan la ko def yéen ci ay tapis roulant ngeen toog yonent bi bi muy ñëw mbaam la fas gëléem la war bi mu ñëwee yéen lan lan leen lalal ay moquette moom kaalaam la lal daal di njaganoo ay dal daal di nelaw sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ na loo xam ne wallahi bu nekkoon ay julit kon diina ji kenn waxatu ko waaye li tax mënuñoo nekk ay julit c'est parce que dafa am ñu farankulaay sunu kanam ak yonent yàlla muhammad dafa am ñun ñu wan wan yi ñu muhammad loolu moo tax kenn ci ñun diine mënul dem diiney fo diiney folklore ay caaxaan ay góor ak yéen i joxasoo fecc ak way tambaambaalu def yaramu neen loolu mooy suñu diine moo tax bu ñu demee ba ñëw dul mun a jël dara dañuy ñëwaat ñaari fan nga gis ajaratu bi cosaan nga gis àllaaji bi soraano wala nga gis ko ci làmb ji kenn ci ñun du soppeeku ixwatal iman xarajna min dawratil iman amali dañ ko doon def formation ngir bu ñëwee mën a lan ci jaamu yàlla tabaraka wa taala la waaye lan moo tax formation boobu du mun a nekk lu tax duñu mun a continuer c'est parce que pas-pas bi moo dëgërul looloo tax ay jàmbar rek te doomu aadama fa mu sonn ndax laqad xalaqna al insana fi kabad ixwaani fokk ñu xam ne jaamu yàlla formation la ndax doomu aadama mën a am taqwa fa tazawadu fa inna xayra zaad at taqwa doomu aadama bu amul formation ci jaamu yàlla du mun a am taqwa lu mu yëngatu yëngatu yëngatu yaram buy metti lay yëg sahabatul kiram dañ daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent bi nekk ci kanam ñu ne si ginnaaw waaye kenn ci ñoom du yëg coono kenn ci ñoom du yëg xiif kenn ci ñoom du yëg mar lu dal parce que dañuy xam ne ci jaamu yàlla la nekk li nga gis koo xam ne ci ñun dem na ba ñëwaat benn yoon la dem Kaaba ga benn yoon boo waxee mu ne la dafa sori te sama tànk yi day metti am nañu ay àllaaji yoo xamante ne dañuy bind ci fajar duñ julli ci fajar duñ yeewu boo leen yeewee ñu ne la màkk fépp la egsi naa egsi naa ngeen dem bu ma kenn yeewee ci ñooñu noonu nga leen mujj a bàyyee ñuy nelaw te buñ ñëwee fi jënd ay nag di nga nale di rey fekk kenn ci ñoom benn yoon la gis kaaba gi mooy jour bu muy tawaaf aqulu qawli hada wa astagfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان لا تنسى أيها الحاج إنما المؤمنون إخوة بعد بوبو آية يوي برم تبارك وتعالى نان إنما المؤمنون إخوة فوق من الدنيا ak nga ko gën a mën a dund lu tax ndax ñi ngay dajeel bokku leen nation bokku leen làkk bokku leen réew xamantawu leen te koo ci gis ni mu la bëggee la bëggee boppam da ngay gis ni dëgg la ba pare ne la au lieu nga ni ko mu ne la baal ma yow yaa yow yaa naan ko baal naa la te xam nga ne def la dëgg léeg-léeg nga gis nit riir daw song benn barab ci barab jaamu yàlla yi daw bu métti benn geste nga koy def rek mu daal di dal lu tax ndax innamal muminuuna ixwa innamal muminuuna ixwa bi yàlla naan jullit yi ay mbokk lañ li tax ñun suñ demee foofu duñ ko mën a tàmbali da ngay dégg benn nit naan la waa ji bi ma jibee dama ko conc ànd nañoo benn góor boo xam ne xaalisam yëpp lañ sàcc dara desu ci ba dañ ko dañoo woowaat waa këram fii ñu yónnee waat ko xaalis ngeen defe ne ki dem ba màkk di sàcc te kenn sàcc ko lu dul waa Sénégal ndax fañ ko sàccee waa Sénégal ñoo fa nekk de deux mooy bis bi ñu koy sàcc kenn nekk fa lu dul ñu waa Sénégal ñoo fa nekk parce que dañoo fanaan mun a wala xëy dem Arafat ñu fanaan ci dal bi dem sàcc alalu góor gi xoola ku dem ba màkk di sàcc kon kooku mu ñëwee Sénégal lu muy def alalam lépp la ñu yóbbu mu ngi may dégg Kër Massar la dëkk ku bëgg ma jox ko numéro téléphone am mu woo ko fan lañ jëm mbokk yi ci yàlla beneen bi ñuy jàng mooy ittibaau sunna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa hirsi alayha kii dem ba màkk gis place yi yi ñu daan wax gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam fii la daan taxaw di jiite néegam yaa ngi nii fii la doon fanaan bàmmeelam baa ngi nii fii la tëdd fii la saabay daan toog wër ko kooku lan moo desat ci moom pour mu dund sunna lu desat ci moom ci sunna waa jooju su fekkee jëlul foofu sunna kañ lay nekk sunnit kañ xanaa bu duggee biir bàmmeel te boobu day fekk béy wéy na muus benn góor laaj naa ko question ma ne ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ganee àdduna taxaw ci jàkka ji di jiite ba keroog ñu koy denc fii ndax waa Medina dañoo toog bis bu ñu julliwul ba julli réer mu ne ma déedéet fii kay bis bu nekk ñu julli ma ne ko imaam bi taxaw fii yonent bi daan taxaw ndax ñeme na fee taxaw di def lu yonent bi defee woon di julle beneen façon bu yonent bi julliwul mu ne ma déedéet ma ne ko kon lu tax ngay julli di wàcc sa loxo yi ki doon taxaw fi nan la doon jullee gisoo kii ni muy def loolu moo lay wan ne ki tëdd fii noonu la doon def ku dem ba foofu royoo rasul nag boo ñëwaatee fii day continuer rek ci alkane ixwatal iman ittibaau sunna topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye li gën a rëy mooy dellu si nga yàlla di rafet njort ci yow ne tuub nga kon nga lawaay bul delluwaat ci ay caaxaan bul delluwaat ci mpo bul delluwaat ci ay aada bul delluwaat ci ay bidaa waaye xoolal premier jour la ñuy delluwaat waaw premier jour la ñuy delluwaat ay tabala tabala tabala benn yoon dong la dagan ci lislaam mooy bisu céet al faslu bayna al xalaali wal xaraam ad duf wa sawt jeex na waaye xool leen nga ne léegi da ngay wax ñu ne tabala ci la bokk bëgg a fecc rek xamuñu ni ñuy feccee ñu dem uti ay tabala te yéen a ngi ni toog yéen a ma gën a xam ne ñiy tëgg tabala yi ay caaxaankat lañ niñ koy tëggee sax xam ngeen ne fecc a tax ñu jóg ñëpp di fecc ku jóge ku jóge ci yonente bi alei salatu salaam jóge màkk nga toog weeru yàlla di dem jàkk di jàng alquran di sellal nga ñëw Sénégal organiser sabar waaw ñu tuddee ko nganale nganale moom ban hadis la est-ce que mu ngi ci Bukhari est-ce que mu ngi ci Muslim est-ce que mu ngi ci Abu Dawud est-ce que mu ngi ci Tirmizi est-ce que mu ngi ci Nisa'i est-ce que mu ngi ci Ibnu Maaja est-ce que mu ngi ci Muwatta fan lañ ko jëlee lu dul bëgg a fo bëgg a fecc bëgg a caaxaan waaw ku gëmul yàlla nag gëmoo yonent foog nga gëm seytaan ndax seytaan du bàyyi kenn tambaambaalu kenn taxawaalu ixwatal iman laallaka ahadta rabbik wa xaaliqika ala tawba amaana yow ba nga nekk foofu tuuboon nga jaayante nga ak sa borom boo del see da ngay sax ci njub yàlla waay fa xasaara moytul ki gën a bon ci nit ñi mooy ku sangu ba pare ñu indil la ay yére yu weex nga sol ko ba pare daa di dem toog ci huile wala nga dem toog ci këriñ wala nga dem toog ci peinture du ko gën a seebar ci doomu aadama yi ixwaan yi boo laajee ki aji woon ñëwaat ndax sonn nga mu ne sonn naa kay nga ni ko temps yi mbaa yaa ngi noppalu mu ne la noppalu naa wax dëgg yàlla maa ngi noppalu alhamdulilah loolu luñ ciy jàng mooy bala ngay noppalu foog nga sonn da ngay sonn àdduna pour yàlla dugal la firdaws nga noppal comme nii nga sonnee dem jaamu ji yàlla nga ñëwaat noppalu noonu ngay sonnee ci jaamu yàlla ndax ëllëg yàlla dugal la ci këru noppalu fii duñ fi noppalu de te ni sonn rek suñu buggee noppalu ku bëgg a noppalu ci ñun na waaj takk ay bagaasam xam ne bu duggee jannatul firdaws noppalu boo góorgóorluwul nag da ngay sonn àdduna sonn àllaaxira Omar ibnul Xataab dafa gis benn labbe labbe bi di nekk ci église bi di yuux di jooy Omar jooy saxaaba yi ne na Omar ab nasaraan nga gis muy jooy ngay jooy Omar ne leen waaw ñu ne Omar looy jooy mu ne aamilatu naasiba kii dafa sonn te du fayeeku sonn na ci àdduna waaye àllaaxira yàlla du ko fay parce que li mu nekk du dëkk allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibaari wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinaabi allahuma ya musabbitu alqulub sabbit qulubana ala taatik allahuma fa nasaluka an turuddana ala dinika maradan jamila allahuma axsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xizi dunia wa azabi alaxira allahuma igfir lana qabla almawt warhamna inda almawt ولا تؤذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصحباء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله yi ñu góorgóorlu tonnale sàppe yi fatt diggante yi fay portable yi bañ pare guddi allahu akbar allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من أين آنية ليس لهم طعام إلا من دريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها رادية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وذرابي مبسوسة الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده.
ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم